amu ci kuñ ciy fekk ci làmba ñu koy koy tudde du am ku ñuy fekk ñu koy tuddee ngénte ma wax ko mu leer du am ku ñuy tuddee match football ndax tur wi turu Sénégal dong la Birame Souleye ku ko tuddee làmb yàq nga sa yàq nga sa activité ku ko tuddee ngénte yàq nga sa activité Sénégal dong lañuy ñuy tuddee Sénégal la ñuy liggéeyal kenn wuti ci tur kenn wuti ci barke kenn wuti ci moom moomal sa bopp lépp Sénégal lañ koy delloo kon nañu xam ni dinañ liggéey ci tekk ak tey ci dal def ni ko président de la république Bassirou Diomaye Faye waxee premier ministre faylu ko ci mooy jub jubal jubbanti te yam ci lépp nag def ko ci maandu xam ni lépp lu ñu def sooba ngoon jot Sénégal moo ko moom Sénégal lañ ko war a delloo askan Sénégal lañ ko war a delloo loolu moo nekk ci projet bi ñuy porté ñuy bëgg wax ñëpp nag bépp sénégalais nañu jóg ànd ak gouvernement bi dimbali ñu ci lii te am nañ yaakaar ni xam nañu enjeu yi sénégale yi xam nañu enjeu yi donc danañ ànd ak ñun ci lii defar suñu dëkk defar suñu askan may sunu jeunesse bi nga xam ne lii projet bi moo ko porté moo ci xeex liñ ci ñàkk xam nañ ko liñ ci tëj xam nañ ko li ci génnoon réew mi xam nañ ko ñu bokkaat àndaat ak ñoom def li ci war maa ngi leen di nuyu di leen ziar waaye leen baalu àq ngeen baal ñu àq yan yan boole jéggal waaye lii day maa ko dugal dama xamul ndax dëgg la am dëgg bu fekkee dëgg la ni ministre wi moo wax lii dañ ko xamal ne ko fii la fekk làmb fii lay bàyyi làmb làmb jiitu na fi ay gouvernement xamal ko ne làmb bi muy am Sénégal amagul indépendance. moom nag na xam ne bu fekkee lii moo ko bind laa wax ba wóoragul waaye daal na xam ne moom làmb yaakaaru ko waaw làmb yaakaaru ko yàlla làmb yaakaaru ko waaw waaw waaw làmb yaakaaru ko te làmb histoire la te dinañ ko xamal ne làmb moo fi jiitu sax indépendance jërë ngeen jëf teel ko xam aussi euh, waxuma sax président yi fi jaar président Senghor moo fi jiitu bi muy recevoir ñoom booy bambara ñoom maam góor gi ñoom Dudu Bakk Sarr ci la bàkkoo woon boobu yàgg na yàgg na yàgg na ba sa biir Kaaba ga moom Senghor keroog ci la wax ne alaaji maam góor gi yow poète nga muy benn président Abdou bi muy recevoir ci euh, euh, euh, alaaji Abdourahmane daan Ndiaye falam ndeysaan mu ne ko man ndar ndar bi may nekk ndar nekk xale ngay bëri ñoom Edouard xale ya daan yéeg ca kaw garab ba di la seetaan naa bokk ba Baye Abdourahmane Ndiaye ne ko eh bu ma xamoon ne <laughs> xale ba ca kaw garab ba mooy doon président man may génn ci làmb ji tungóob lu dugal loolooy ñaar ñett ku ne xam ne diggante histoire président Ablaye Wade ak làmb fii la leen recevoir ci palais amul lu mu defalul làmb amul mbër mu teralul fii xoolal diggante. EDN info groupe whatsapp la 76 693 89 04 abonnement 500 chaque fermement 500 foofu la mbokk xoolal diggante Balla Gaye Modou Lo recevoir na leen fii di wax ak ñoom. wax leen ne ay exemple ngeen xoolal teraanga yi mu leen defal paasu màkk yi mu leen yi mu jox jox xale yooyu ci seen jamono yéeg cinquante millions jox may ko may ko may ko may ko waa làmp ak yeneen yoo xam ne euh, may ko ancien couloir yi yeneen teraanga président Abdoulaye Wade euh, euh, combat fees nag bi fii gis ngeen ko fees nag def na fii combat muy ñe ñeenteel bi président Macky Sall mii doo ko def tey ci moom la ñu amee arène boo xam ne bii dootuñu toltolaat waaw xanaa kay eh, eh, bu ñu yokkul yokk waruñoo waruñoo wàññi dañu war a yokk et puis ñoo xale yee marché xale yi bëre ak ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo bokki ak kon ñoom dañu war a yokk waaye waruñu wàññi waaye nag teel a wax baax na ndax xëy na bu ñu teelee dégg dinañ rek si féewu ci lu bari waaw lool daal laa ci doon yokk daal waaye di wax ne rek ne euh, réew mi ñoo ko bokk parce que tamit. ñëpp ne am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir làmb ñoom la ñu wooteel te waruñu décevoir ñooñu aussi te ñooñu làmb rek moo ne seen xol te ci làmb la ñuy teddee aussi nit ki am na koo xam ne kii wooteel na leen te ci làmb lay teddee te nag kooku xanaa doo ko toroxal ci li muy teddee te te te te te ànd ak yow ci lépp loo xam ne lii euh, def ko ko euh, te loolu yëpp ñun xam nañ ko xamante nañ suñu biir waaw moom day xam nga euh, waxoon la ko fii ne sotti loolu ci bi muy wax ne euh, euh, Macky Sall day posone Amadou Ba xam nga moom la woon moom mii la woon moom la woon moom dama defe ne sax war nañ ko nommer beneen poste boo xam ne du jël parole moo gën parce que lii mu commencé nii dëgg yàlla te waxoon na ko ba dugg ba dugg